tey comme ni nga ko waxee dañ fi ñëwoon fii ci Missirah euh, dajeeg suñu mbokk jigéen yi nga xam ne ñoo ne ci wàllu euh, transformation halieutique maanaam jën yi keccax yeeg ñoomiñ seen te euh, bi ñu ñëwee aussi liñ fi gis rafetlu nañ ko torop kenn umpalewul tey ne bi mbas mi ñëwee am na beaucoup de domaines yoo xam ne gis nañ ne foog ñu xoolaat ci yan anam lañ ko gën a mën a dëgëralee ba nga xam ne yenn mbas yi bu ñëwee wala yenn euh, crise wala yenn catastrophe yoo xam ne kenn xaaru ko woon acteurs yi gën ko mën a dékku parce que lii mooy Sénégal bi nga xam ne c'est le monde réel de l'économie donc bi ñu ñëwee tey gis euh, jigéen ñi lu ëpp ñaar téeméeri jigéen ñi ngi ci filière bi yépp loolu dafay dëppook li ñuy wax économie sociale et solidaire ndax économie sociale et solidaire li muy gën a prôné li muy gën a jëmmal mooy nit ñi nekk dajaloo def seen mbootaay wala leneen àndandoor di liggéeyandoo. dimbal bi nga xam ne moom lañ ñu bëgg mu dimbale ñu si premièrement bi mu dimbale ñu si wàllu financement bi bu leelu weesoo am na yeneen dimbal yoo xam ne tamit tey bëgg nañ ko parce que suñu équipe bi am nañ récépissé am nañ NENIA am nañ registre de commerce mais amuñu agrément. wa bëgg nañ am agrément suñ site bi tamit bëgg nañ ku ñu ko moderniser bañ mëna mën fi produit de qualité yo xamné ñu mën nañ ko jaay Sénégal ci fiara yi ak ci foire yi ñu mën koo yobbu tamit ba ci bitim réew te bo amulé agrément do mëna am lolu wa li transformer ci wër bi nak day bëri sans dépend géej bi nu nu affaire bi nu muy ñëwé produit bi nu muy ñëwé yeen parce que yeen saa euh produit bi dina bëri trop mais yeen say yi tamit dina wàññi parce que du tiagi ne toujours bu jot gaal suñu démé dañuy fess yeen say yi bi dina neex mais yeen say yi tamit géej bi dina xawa a wàññeeku dañuy togu duñ def dara tamit. luñuy def ñun luñuy defar produit ñuy defar fii eh, si marché moderne yi lañ koy jaayé luuma yi ak Dakar te ren Dakar mom njaayum Dakar mom ñepp gis nañ ne lool mom dafa baissé. loolu am nañ ci jafé jafe bu bu maga mag fofu ci wàllu yenen produit yi nga xamné dañ koy am fi ci loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire bi nga xamné c'est en chantier au niveau du ministère wàllu statut acteur yi dinañ ko ci xol bu baax a baax tax da ciy bok yenen mesures sociales yo xamné war nañ leen ko def à l'image de liñu mbass mi won te mu nek ay limites. Nous ñu mën ko ci de manière durable investissement yi ñuy def day dina répercuter wu bu baax comme ni président de la république Macky Sall bëggee ci walu euh, bien-être ak euh, environnement wu liggéey.